bismillah feebar bi la day ah. dëgër na bopp de bàjje na ma ko ngemb le soleil yéene kaay ne en tout waaw daal dinay def nag bilan ñaari weeru feebar bi la ci Sénégal ndaxte mbas mi de ah nee na delluwul ginnaaw de déedéet dama ne la ci weer wi la waaw téeméer ak juróom-ñeent fukk la ñuy jugee daal di tàbbi nag ci junni ak ñaar fukk ak ñeent allahu akbar laa ilaha illallah lu tolloo juróom-ñeenti junni ak juróom-ñaari téeméer ak benn de ci ay contact am nanu jërëg mars bi waaw lu tolloo fukki junni ak juróom-ñaar ak juróom-ñaari fukk ak ñaar yoo xam ne kon réalisé ca ndaxte nee nañu lu tolloo ñaar fukki ci ay bërëb yoo xam ne dee ci juróom-ñeenti région ci fukki région ak benn yi nga xam ne kon mbir mi la leen dee taxawal nañ leen di vingt six waaw hydroxychloroquine ngii nga xam ne ñu ngi koy fajee waaw ma ngay def nag ay résultat dee te deful tamit nag ay effet secondaire kon kay waa kitin ji baax na waaw tribune yéene kaay ne jàpp leen ne musiba baa ngi dikk dee mar di itali xam nga jàngoro ñu nekk ci ay fan yii di ñëw nii ah fa mi ah mën la wax maar day taali laa ilaha illallah professeur Mamadou Jara Bey ah nee na lu toloo ñaar fukk ak ñett ah ci ay kaayu garaaw fukk ak juróom-ñett yi dee ñu ngi leen di faj nag fii ci Ndakaaru njaajël joob yi dee la ñu tasaare kon ci biir région yi lée enquête gis nga jàngoro ji nag maanaam kon ak na muy màggee ci biir réew waaw jàngoro daal daa ba Touba def kër Touba waaw la sabab lu ni mel nag mooy waa Touba am na ca ñoo xam ni kon gëmuñu feebar ba boobee benn ñaar régal yi nga xam ni kon dañu ya waaw am na ñoo xam ne ci daanu Touba googe xamuñu ko dëgg la Touba daal boo bëggee dégg dëgg ah mbira jaaxal na kilifay nag laa la wax marché ah. foofee nag maanaam la ñuy wàllaatee dee waaye nag lobby bu am doole ñooy jàppale waa marché ba docteur Mamadou Dieng ah nee na gis nga tund wii nga gis nii ñi fi am jàngoroy corona yëpp waa Touba leen wàll Touba ñooy wàllaatee ar day tali waaw waaw bog sobli ne en tout cas ci fanweeri fan de mbir mi daa yokk ba muy juróom benn yoon mar day ñu nag maanaam di lambar lambari di dox kon ci biir dëkk bi lee mën nañoo jural musiba mbaa ba kumba laa la wax yéeni kaa gi ne en tout cas Sénégal ci boppam de daal dinay changé na kon feem changé na xeex de ah, ah. waaw waaw parce que nag léegi ni ne dana faci fudul biir hôpital ngir sakkanal lu toll ñeenti téeméer ci ay lal angaaru pèlerin yi lée ujaaj yi ci Yoff waaw ak base aérienne armée ba ta ak centre des armées bu géréw ke yi daal la nguur gi jàpp critique yéeni kaa ne Macky Sall daal jàpp a a Sall nee na dañu ko yokk kon ba ñaari fan ci weeru juin laa la wax laa lay la la ramas Moustapha Diakhaté ci réew mi waaw nee na ramas bi waaw du saafara couvre-feu bi du saafara nañ leen nit ñi sur sa année en tout cas ca am dafa benn njaboot goo xam ne de dañoo taxaw ak dëkkandoo waaw ne kenn du laa la wax mbarke Rasuul lay <laughs> waaw waaw parce benn maire toll na ci juróom-ñeent fukki at ak ñaar moo bopp lay def de bu sa bopp méttee nga dikk da doon mooc ba am corona ba konte ñu ñëw ne dañ leen di quarantaine yaat ma faal sëtam la nee na ñu jël deretam ak lépp waaye xamal naa commandant bi ne ko maire bi du fi génn tey te du fi génn ëllëg même bu dee d'accord naa du fi génn ah, xeex ba jolli ba ñu gaañ fa benn gendarme laa la wax eh way a génn de léegi ko yéen a ca caaro yi ñetti mbaar waaw am na fa ay policiers yoo xam ne dañ leen a agressé dóor leen ba gaañ leen laa la wax maar day taali dañ doon topp ay gono yoo xam mbedd ma la leen fekk waa koñ ba songu leen léegi quotidien yéene kaay ne en tout cas hôpital yi fees na dell Médina Gounass Sigué juróom-benn kaa Thiès moom ñay dox mel ne feebaruñu te feebar foofu la wulee ñaay libération yéene kaay feebar bi kay ndakaaru njaay ja jóob gii la dikk na toog sax woo ko am ak yoof day ña nga ca kanam mar di Italie waaye région de Dakar te Médina waaw ñoo ñoo jël coupe ba nag Médina jël bee ak 77 kaa la ilaha illallah gël tapé Fass moo jël deuxième ci commune yi maa la ko wax waaye HLM tamit tey kenn demul mu ak Sébikotane ak Diamniadio Dalifort ginnaaw raay sud Malika ak Médina Gounass ñoo ci suuf Derklé tamit am na tey ak Point E Amitié Hann Bel-Air Patte d'Oie Yoff Golf Sud Wakhinane Nimzatt Bambilor Yeumbeul Sud ak Yeumbeul Nord waaye PCC yi tamit tey bombu la de de centre d'appel boobee bombu la docteur Cheikh ci Direct News waaw nee na Afrique ci boppam tey mën naa dimbali boppam parce que Sénégal ci boppam kon wane ko jàkkaarloo réew sekante wax ci direct news de évidence yéene kaay ne en tout cas commune mbaaw waaw maire ba ci boppam di Abdoulaye Pouy de Obama ah daal dinay jébal nag poste de santé ya lu tollo ñeenti ci ambulance ak 15 000 masques très bien monsieur le maire yéene kaay gi nañ ko dee moo tax waa Rapidos waaw nee taxawal nañ benn plateforme boo xam ne dee cliquer rek def jënd cliquer ñu livrer la ko eh, Rapidos 24 heures yéene kaay ne bi nga xam ne tëj nee na mënoon nañ ñoo bàyyi sax altine ba alxamis parce que ne 80 pour cent commerçant yëpp ay góorgóorlu te kenn dimbaliwu leen Omar Cissé ci libération yéene ne mais xoolal li ñu Abdou Karim def jënd leen seeni produit plastique ñu jënd ko dédouané ko valeur u sept kon 10 milliards la ilaha illallah fukki fan lañ ca teg ñu nangu suñuy marchandise eh mu waay maa la ko wax complot d'état Omar Cissé ne dañoo fas yéene xeex na te fu mu yem neex barke la wax Matar Cissé de ah lañ tuddati na ci scandale boobe ak akillee tey akillee business la boo xam ne juróom-ñeenti milliards signé na ko 18 février 2019 une semaine ginnaaw ba ñu signé nag scandale akillee ba 186 milliards la juróom benn fan laata élection présidentielle ya waaw waaw bii tamit ko contrat bee rek 10 ko signé ma dem ba waaw nee na nag fi a dem daal mooy négocier waat jubbanti waat nag lii ndaxte nag xam nga exploitation Senelec ca boppam last licence de pêche yi nekkoon dañ koo jox chinois yi de ña nga xam ne ñoom ñoo cay yëngu waaw weeti nañu nag waa GEPES kale doon tuumaal Alioune te acteurs sax nee nañ moo ne ci yoon l'observateur ne wala ay gi lé dimbali ne nag état bi de ci chantier yi ah dama ne la chantier ya ca jam ñaajo de lépp critique lépp taxaw fañ war a def stade ba terrain wu neen école internationale africaine daanaka dañ koo bàyyi ba ca Colobane yegg na bi dimbali na leen ndax ñoom ñoo ne woon avril lay taw ba léegi ni lay teer baa nga ne yegg teer dawul Dakar Times ne waa météo de li ñu wax ah nee nañu nawetu ren bi nar naa bëri ndox de nawet bi nar naa bëri ndox lool <laughs> waaye nag ak lu ndox mi bari bari bari bari bari bari bari bari bari ndox mu ñuul mi di pétrole bi moom buñ ko fàtte mukk parce que suul gaz du ko tere xañ te troisième mandat dañ ko fii tere rek boo paree mën a la tëjal